jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax ponk yi ca gën a fës chauffeur si daw ah, ci diggante diwaan yi nag ñu ngay wéy di ko wallu ñoom nag daal nañuy manko booy xool ci Sénégal wërngal këpp ngir wax lu leen métti ñetti weer demuñu dikkuñu ah, te loolee nag ci la seen sutura nekk bokk na ci chauffeur yi nekk ah, ca Tiwaawan ñu ne nag li nga xamante ni moom mooy couvre-feu beeg ak li am lépp ci wàllu dem bi ak dikk bi nañu fexe ndax ñoom sonn nañu mu mel ne ñu féete tamit euh, fële nga xamante ni moom mooy euh, Kanel ñoom it euh, wane nañu seenu mer lool gannaaw ñetti weer ñetti wax naa ko léegi ñuy dund ay jafe-jafe ña nekk fële ca njaaram it feelu nañu leen ci doxu ñaxtu boo xamante ne amal nañu ko ngir jébbal gouverneur ñoom it seenu ko nakkar chauffeur si manko ci Sénégal ne lii mënatuñu koo dund beneen ponk ci biir xibaar yi gannaaw njàng mi nga xamante ne tey dañu ne woon dafay dooraat mujj la antu ndax dañu ko sax dàq ko waral muy fukki jàngalekat yoo xamante ne euh, dañu ne dañoo amee jàngoroy euh, mbas mi fële moom euh, ca Sigicoor jàngalekat ya nag ña ngay wooteeg wàllu ndax ñoom sax xamatuñu fu ñuy féetee ci seen wàllu kaaraange am na ñoo xamante ne dem nañu ba foofu tey nag la ñuy sàkku rek mooy ñu dimbali leen ñu mën a delsiwaat ci ndakaaru waaye tamit gën a waajal li nga xamante ne moom mooy ubbite bi tolluwaayu mbas mi ci réew mi tey jàpp leen ni juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ci doomu ñoom ñoo ko amee ci junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xamante ne def nañu ko fukki ak juróom-ñaar di ay cas contact ñaar fukki nag daal di bokk ca wàllante googee ñu xamul Sacré-Cœur Popenguine Grand Yoff Rufisque ak yeneen i kon diwaan daal bokk tey rek ci mbir mi jàngoro jooju ñu seetlu ni tolluwaay bu boo ko jëlee téeméer bu ne juróom-ñaar ci la toll fii ci réew réewum Sénégal moo waral ñu jox kàddu koo xamante ne ab professeur agrégé la mu yëy yàbbi ci mbir mi xamee lool ci wàlluk santé publique di ngeen déglu ay kàddoom eh, ci biir xibaar yi muy eh, Cheikh Mouhamadou Mbacké xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon nag chauffeur si nga xamante ne ñooy daw euh, ci diggante diiwaan yi nag ña ngay woteeg wàllu tàyyi nañu sonn nañu ñetti weer a ngi nii dematuñu dikkatuñu kon nguurug Sénégal euh, matuwaay yi nga xamante ni da koo jëloon nag ngir jàngoor ji euh, bañ a law rek na fexe nag ba ne koo tegg ci suuf ndax ñoom sonn na lool lool ni ngeen koy gisee nii ci nataal yi ñuy lakk nag ay nekkoon def nañu ko bokk na ci chauffeur si nga xamante ni ñoom ñi nga féetee ca loolu nag lañuy des ndax seen i ñooñ ya nekk ca kanal dégg nañu leen euh, ñoom it ñuy wane rek li nga xamante ni moom mooy seen méttit wax naa ko léegi muy ñetti weer yoo xamante ni nii daanaka dematuñu dikkatuñu te ñoom kat liggéey boobu mooy seen sutura dañuy day ànd euh, dañ ciy teewlu euh, Bapala jàlloo moom moo wax ci seen tour ci micro Ali Bandel mais boobu ba tey ñun amuñ lu ñu ci doyul bu boobu jàllee ñun ñu ngi fii musuñu def violé lu ñu def violence amu ci président moo ñu wax nañu toog toog nañu trois mois ñu ngi fii liggéeyuñu ñu ñu ngi fii ñëpp ay responsabilité lañ ay borom kër lañu ñu ngi fii ñu ngi gaare suñu oto yi liggéeyuñu defuñu dara ñun am nañu lu ñu métti président ne woon na dinañu dindi loo xamante ne lii pour pour chauffeur yi gisuñu ko ñu ngi toog nañ sonn nañu sonn nañ trop président bu ñu jàppalewul lii di dem te lii nii lii pour askan bi yëpp la ñun ñëpp ay chauffeur ñi fi nekk ñëpp ay chauffeur lañu te ñun amuñu fen fu ñu fu dund lu dul ci transport bi moo ñu dundal amuñu beneen mécc amuñu leneen ñu ngi leen di ñaan amul problème amul dara na nañuy dimbali rek ñu ma ñu ñu liggéey même bu ñu mayul benn dërëm bu ñu mayul benn dërëm bu ñu jox bu ñu jox xaalis mais ñu bàyyi suñu oto yi dem ñun ñu liggéey rek dañuy am. ma ngoog euh, ñu dellu kon Tiwaawoon euh, maa ngi ko doon wax léegi foofu it chauffeur sa euh, tey xëy na nu wane seen bopp ci li nga xamante ne nag moom lañuy dund manaax Ndiaye moom moo yore kàddu chauffeur sa foofu ca Tiwaawoon ñu teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Anta Diop. mbir mii nag mitti gi yéeme na jéggi na dayoo safoor yi sonn nañu safoor yi sonn nañu lool muñ nañu lool lu ne dañ nañ ko te nag li leen ko yóbbee lépp mooy gore ak dégg ndigal waaye nag toogaay métti na de ñaari weer ba ñetti weer kuñ ko tëj sa kër nga war a lekk war a naan yor fa ak njaboot amoo dara loo leen jox kenn dimbali wala chauffeur bi laaj nañ sunu filiation yëpp nga xam liñ jël ci nun ku ko jëleen ci nit foo ko fekk muy guddi muy bëccëg fu mu nekk senegal man ngaa dem jàpp ko nit bu jaa bu ñaanee dafa jaaxle waaye ñun mën nañoo dimbali état mën nañoo dimbali ba duñ egg ci ñaan mbir mi métti da de taxawaay bi yàgg na dama ne ñetti weer du ñaari fan te noonu suñu ñetti weer kenn dimbali wunu dama ni nañ ñu yërëm nañ ñu yërëm boo yoree njaboot goo xam ni du ñu fipp du ñu wax du ñu ne oh nu liggéey boole ci nga téye seenub liggéey dama ni waxal ñoom waay te leen xamal ne état bi nun lii nu nii bu dakul te giinu te nii ah moomuñu suñu bopp de ak njaboot lañ yor bu yàggee dañuy fipp te fipp baaxul. ma ngoog ñeet nee nañ bu yàggee daanu fippu muy euh, chauffeur sa nga xamante ne ñoo féetee euh, ca njaareem ñoom it euh, wane nañu seen bopp doxu ñaxtu la ñu am nag ngir daje gouverneur gouverneur moomu nag la ñu bëggoon rek mooy jébbal ko li nga xamante ni moom mooy seen ip jafe-jafe du ñàkk rek ñu ngeen gis ko ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu àddu ci wàllug njàng meeg njàngale mi tey jii nag la ñu fas yéene woon ubbiwaat rek kon daara yi ngir ndongo yi nga xamante ne ñoo toll ci examen mën li ko waral xam ngeen ko fukki jàngalekat yoo xamante ne nee nañ ah, dañu amee jàngoro yi mbas mi ah, ca Sigicoor Sigicoor googu nag ñu gis ni ah, jàngalekat yi ñoom xamatuñu sax yëf yi lu mu leen di nuróol ndax ñàkk kaaraange dëgg la ñu wax ñu ne nag bu ñu soñoon daal kilifa yi daañu leen gën a gunge ngir nag ñu xam naka la ñuy def rek ba dooree dooraat njàng mi waa COSYDEP ñoom it nee nañ lu mu ci mën a doon rek nañu fexe matuwaay ci wàllu wér-gu-yaram ñu jël ko ba mu mat sëkk Boubacar Diassi ca diwaanu Sigicoor seen yenn jàngalekat yi biñ fa yegsee dafa am ñoo xam ne dañ leen di daw stigmatiser leen kon nag mbir mi bu xewee. dàq bu ñu dàq ubbiteef l'école bii ba jëmmi jamono te fekk jàppoon nañu benn noppi ñaari fan ci weeru juin bi daanaka nekkul ab mbetteel ci kuréel syndicat bii di G7 bu diwaan bu Ziguinchor. ñun loolu bettuñu parce que dañ koy yàgg xalaat xam ne fi ñuy dem ni wóorul waaye nag comme euh, mbirum nguur la ah bàyyi ñu jàpp si rek ñu dem euh, lii mënoon na bañu am. Euh, ndax ñun dañ ci teel a jóg. waaye gii la jàngalekat moom. moo ngi ciy jëlee ab naxar. waaw te dañ ñëw école ci woote directeur bu mu ñëw ooyee tey ci fajar bi. daw na yaram te ba pare dañ ci ànd ak tiitaange lu tax loolu c'est parce que tey mesure bu mu amee fii fii ci biir Ziguinchor mi ak ah, ñëpp jaaxle nañu. léegi situation bi nag tax na ba nga xam dañ ñëpp ragal nañu léegi loota euh, vraiment métti na mais nag euh, ñu ngi ñaan. vraiment yàlla sotti ci ndox bu sedd. ndaxte suñu jëlee si misaal bii la école nekk ci capital bët Saalum réew mi daanaka lépp matoon sëkk ngir jàng beek jàngale man cee tàmbale. ñun pareewoon nañu pour jàngale parce que bu ñu pareewoon loolu ñu fi doon gis ñun fii ñu ngi au complet parce que jàngale bi liggéey la parce que toogaay kër gi yoru ko nit ki boo euh, signé nga ne man de laa bëgg a def foog nga dem ci benn mu jeex te jàngale dafa doon li nga xamante ne du lu métti na mais méttiwul parce que banneex nga ci am. waaye boo seetee si biir du lépp luy lekkool ci diiwaan bu Ziguinchor moo mënoon tàmbalee bés ni ki tey jàng beeg jàngale. lu ñu gis collectivités territoriales yi ñoo nekk di def ay effort te ñoom gis nañu ni ki ñoom seen c'est vrai que éducation compétence transfert la waaye si ñoom tam seen doole yemul am na ñu nga xam gis nañu ni ki góorgóorlu nañ trop def en place tout le matériel ba nga xam mënoon na permettre ñu démarrer mais am na ñu nga xam defuñu dara. waaye suñu sëkkandikoo ci kaddu yi bile syndicaliste képp kuy jàngalekat bi am coronavirus ci diwaan bu Ziguinchor nguur gi war na laa taxaw taxawu ba mat sëkk. jar na ragal ragal moom parce que lii damaa yaakaar ne presque départ la donc euh, mais euh, nguur gi aussi dañoo laaj pour mu taxaw ci parce que lii yëpp boo gisee mu am moom tamit loxoom mu ngi ci te moom rek moo ci mën a taxaw waaw donc loolu lañu ko euh, laaj ñun ñun en tout cas suñ kaddu ba léegi ñoom nañu jël seen matukaay seen responsabilité. ñu jàpp ne bis ni ki tey. fanweeri doomu aadama ak ñeent ñoo am Covid 19 te ñu leen di faj fii ci diiwaan bu Ziguinchor. beneen syndicaliste bu yëkkati ay kàddu muy nag ki jite SAEMS di sawru seen nee na nag moom li ci gën a yéeme rek mooy joxoñ baaram boobu ñuy faral di joxoñ baaram képp ku ñu ne amee nga mbas mi kon ci jàngalekat yi nag nguur gi na fexe rek ba wàlluk beddi googu daal ñu daal di koy xeex ñu teewlu ko ci micro Chérif seen yeneen localité yi jàngalekat yi biñ fa yegsee mais dafa am ñoo xam ne dañ leen di daw stigmatiser leen kon nag mbir mi bu xewee loolu mën na yokk foofu comme état nag moo leen convoyé yóbbu leen foofu na état fàttaliku ni ñooñu on on exige le maximum de sécurité et de sérénité au niveau de ces enseignants donc na état jël toutes les responsabilités pour que jàngalekat yi ñu bañ leen bojji ci benn boor foofu ñu nekk wala ñu indiwaat leen reprise mais reprise bi amul na ñu xool toute façon encore in fois de plus ñëpp dinañ mën a toog waxtaan xool quelle est la meilleure formule pour que formule boobu ñu jël waxtaan woowu nag euh, moom la waa Ndar sax euh, di euh, sàkku foofe mu mel ni sax mbetteel am na lool ci daara yi nga xamante ne ñoom ñoo fare ca public ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy jàngalekat yi nag ñoom yëfi daal bettu leen nag am na loo xamante ne sax dal na seen xel bu baax a baax ci mbir mi ndax ñoom nee nañ nguurug Sénégal dafa mel ni rek dañ leen a yabal ñoom jàngalekat yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ndongo yi ne dem leen feebar baa ngoog te loolu dara nguur ca u Ousseynou Diop. ñu fekk leen ci biir li Cheikh Omar Foutiyou Tall bu Ndar ñoom élèves yi nga xamante ni tey jii dañoo waroon jàngi dañuy jaaxle waaye tamit xaddi ci seen i ëllëg. c'est une déception parce que nous étant des jeunes nous devons travailler. waaw am nañ déception moom am nañ déception parce que nekk lu ñu gënal. ñoom nag ci seeni kàddu nguur ji dafa war jël ay mesures yoo xamante ni dafa war cëng ngir ñoom ñu mën a delluwaat ci l'école bi jàngi nañu formé nag ubbite gi tey jilee ñaari fan weeru juin doon loo xamante ni lu leen naqare la. parce que ñun étant des jeunes war nañu mën a jàng ko ndax ay jeunes lañu te. avenir bi suñ gars yi si ñun la ñuy yaakaar quoi. ñu bu doon suñu sago ñu toog continuer def suñu cours normalement ins bi waroon na fekk ñu tëj parce que ñun ba léegi xamuñu état bi disposition yi mu jël. ñeneen ñu mbir mi naqar yi mooy syndicaliste yi nga xamante ni ñu ngi ci diwaanu Ndar Géej nee nañu ñii di état bi tâtonnement la ñu am ci mbir mi dund na leen sax baaraam jàpp ni lépp li nga xamante ni ñu ngi ciy def amul lenn loo xamante ni wóor na. mbir la mu metti metti la mu ñàng ñàng bu soobu jotee dañuy soobu ñun ñëpp xamoon dañ doon xaru ji xaru woon léegi nag xamoon na ni lii dina am est-ce que lii rek tax ñu delloo dat bi est-ce que amul leneen ci suuf. ci seen i gis-gis mbir yi dañ ko waroon a def nawetaan maanaam jàngalekat yi nekk ca ndakaaru toog ca ndakaar ñu nekk ci Ndar itam toog fii ngir ñu gën a mën a xeex lii di feebaru coronavirus bi. tous les enseignants man nee naa sax li ñu war def mooy dañu war nawetaan mbir mi jàngalekat yi nekk ci Dakaaru dañu fa war a toog jàngal élèves ya fa ne. ñu nekk ci ndar itam noonee la ñu war a def kon jarul ñi nga xamante ni dañu nekk ci yeneen gox yi di ñëw ci yeneen région yi ndaxte loole mën na indi feebar bi ñu wàll ko ñeneen kon daal li ma gis mooy ku nekk fa nga nekk foofee nga war a toog jàngale fa syndicaliste jàngalekat wala boog ay élèves yi nga xamante ni tey jii dañu waroon a tàmbali lii di njàng mi am nañ loolu leen metti ñoom sax ñu ngi ñaan nguur gi mu jël yeneen i matukaay ngir bu ñuy ubbiwaat yi du am benn jafe matukaay yooyu nag bokk na ci fexe rek euh, ministère bi nga xamante ne moom la ñu gàll wàllug njàng meek njàngale mi euh, déggoo daal di fay am lépp nag ñu mën koo teg ci lu leer a leer du samay kàddu mbootaay gi nga xamante ni moo ëmb way juru ndongo yi ak étudiants yi moo ni gisee ki ko jiite nag di Abdoulaye Fane yëkkati na ci ay kàddu dénk ko Maymouna Ndiaye ak Youssou Baro. mbir mi du wàllu ministère yi rek. yi nga xam ne ñoom ñoo yore njàng meek njàngale mi. du ñu waaye dafa di baax yu mel ni bu amee ñoom ñëpp ñu daal di toog tout autour de lui jàppale ko parce que li ñuy bañ moom mooy mu port mu porter la fardeau de cette situation là te bu boobaa aussi kenn du ci baaxal ndaxte xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi defe naa ne sunuy doom lañu ba tax na donc euh, loolu dañ koy ñaan waxuñu ne nag amul waaye daal dafa mel ni dañ koo xaw a seetlu. te dañuy incité boo gisee ma wax ko da ngay gis sax yenn gox-goxaan yoo xam ne yi ñun xam nañ ci dara parce que kuréelu wayjuru ndongo lañu bu desee lu dul peut-être ñu dal di nettoyer assainir dal di pomper day xaw a sooxe te loolu aussi véritablement war nañ ci mën a am rôle yeneen ministères yi nga xam ñoom ñoo ŋànk hygiène ainsi de suite nit ñi jàppe ne daal dafa mel ni dañu war a continuer rek pour ubbi am na bés bu ñu tànn defe naa bu ñu ko defee rupture du am. ba pare aussi mesure préventive yi nga xam ne moom la ñuy wax yooyu yëpp dana mën a am parce que defe naa discipline collective boobu bu amee rek dinañu mën a permettre ku nekk sa gox-goxaan ba nga nekk ak sa koñ nga mën a aar sa bopp muy lu bari di eh, ñaxtu rek ak di ko ŋàññi ci mbir mi muy nag école yi nga xamante ne dañu ko bëggoon ubbiwaat tey mu mel ni kon eh, daanaka booy xool dara yembutoon mu mel ni nguurug Sénégal rek dafa jël ay matuwaay eh, te dara sottiwul ay acteurs ñu yëngu ci wàllu njàng mi ñoom ñooy sàkku rek kilifa yi daal ñu gën a xoolaat mbir mi te gën koo yoon yoonal laata ñuy def lenn Fatou bintu Konté nguur gi dafa fasciné woon ci ji li nga xam ne moom moo di école yi tey ci 2 juin bile naam ba ñu toogee lu mat ñetti weer jàngiwuñu te la ko soobee moom moo di feebar bii di Covid 19. mais nag ña mu concerné woon moom moo di élèves yi nga xam ne ñoo nekkoon ci classe d' examen reprise boobee mu jot a nga xam ne moom moo di Bouba Diop di professeur à la retraite dafa jàpp nii nguur gi dafa yàkkamti woon lool wante condition yi desoon na. dañu xaw a yàkkamti ndaxte xam nga euh, président Senghor moo doon wax. bëgg dem taxul dem mën a dem mooy tax dem moom daaw na koy wax euh, gouvernement bi dellu na gannaaw mais mënul woon bañ a dellu gannaaw ndaxte euh, waxuma la feebar yi ni muy lawe ak itam li nga xam ni moom la waxoon jàpp ko ak ñi muy waxtaanal loolu yëpp sottiwul. moo ne di ki nga xam ne moom may si Sidé Gorbal Sy bokk ci coalition nationale éducation pour tous moom mi ngi rafetlu dellu gannaaw bi nga xam ne nguur gi dellu na ko gannaaw ci lii nga xam ne moom may delluwaat ci école yi lii. ñu ngi rafetlu euh, ni nguur gi jëlee décision boobu di euh, di reporter ouverture école bi parce que euh, bu bu ñu ubbi woon école yi ci conditions yi loolu du baax si jàngalkat yi du baax aussi ci élèves yi du baax aussi même ci parents d'élèves yi moo tax rafetlu gis am na ay élèves yoo xam ne dañu am virus bi moo tax ñu ñu reporter école bi vraiment c'est une décision sage. année scolaire bi nga xam ne dafa perturbé jamono ji la ko waral moom moo di corona bi nga xam ne moom moo nekk ci suñu biir dëkk sauvé nekk lu mën a am ki nga xam ne moom moo di Bouba Diop ak Siré Gorbel si jàpp nañu ne lu war a mën a nekk la mais nag faaw ñu teg ay conditions. 1968 booba Senghor a fi nekk dañu jàng toog nañu juróomi weer jànguñu def naa brevet. mujj naa am brevet mujj naa am baccalauréat ba ñëw jàngale université bon xale yi bu ñu leen nëxal seen xel nañ leen jox yaakaar waaw fu ñu jaar ubbiwaat nu muy demee nag na mais loolu la ñu war a waxtaan te xel yi dal. dañ ko mën a sauver parce que ça euh, loolu de muy dépendre lu mu gën a dépendre ci ci évolution situation pandémie bi bu ñu demee ba xam ne vraiment situation bi mu ngi mu ngi dellu ginnaaw mun nañu dem seet ba ubbi école bi pour ñu mun a euh, sauver année bi parce que bu ñu sauver wul année bi loolu du baax ci système éducatif Sénégal. jamono ji nga xam ne ci jamonoy coronavirus la ñu nekk nguurub Sénégal dafa décidé woon ubbi li nga xam ne moom moo di école yi lee décision bi nag dañ koo gaaw a reporté décision boobu nag dañ koo gaaw a reporté balaa nag élèves yi di delluwaat ci li nga xam ne moom moo di ci classe yi lee bu ñu xoolee sax jamono yi yëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo di waay juru ndongo yi enseignants yi ak état bi bokkuñu woon benn kàddu ci li nga xam ne moom moo jëmale ci wàllum reprise bii lee daara yu fare ci privé bi moom ñi ngi xel ñaar seenu ëllëg ndax ku ne xam na ni yëf yi ba mu tàmbalee jafe-jafe yi moom euh, kenn ëppalewu leen ca ci jamono jooju ñi fare ci public bi ñoom lenn képp moo leen soxal mooy nu ñuy fexe nag ba calendrier bi daal ñu jékki-jékkilaat ko waaye lu mu ca mën a doon mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb euh, école privée laïque yi nag ne ñoom bëgguñoo dégg benn yoon ñu ne at mi niin na Mohamed Samb dogal bi agsi ci jamono joo xamante ni si ñu bëri xaaruñu ko woon waxtu wi nga xamante ni si ñu bari ci ndongo yi war nañoo delluwaat ci classe yi dañu ko fomm tey ci suba si nag ay lekkool yu bëri fii ci réew mi nag boo dem rek di nga fekk mu wéet ñu néew ci ay jàngalekat nga fay fekk bu dee ni nag li ñu fomm delluwaat ci classe yi ku ci nekk ak anam bi nga koy jàngatee. décision bu responsable la man noonu laa ko mën a gisee parce que reprise bi woon nañ ko. te def nañ ci aussi ay moyen parce que tooguñu rek ñu ngi préparer reprise bi ba fii may wax yow tey dañ ne dañoo reporter donc report waxuñu annulé donc dañoo yaakaar ne bu contrainte yooyu tax ñu report bu tane dinañu reprendre. am na ay parents yoo xam ne sax amuñu woon information bi donc tey ci suba dañu jóge seen i kër bàyyee ko fa ak seen njawut ñëw ba fii donc fii la ñu amee information que ne dafa am benn report bu am mais ñun. lenn rek lañ ci am lu ñu xaw a xaw a njagas ci ñun mooy ne sunu candidat yi ñu am yi nga xam ne dañoo war a def bac. awa di ab ndaw lu nekk fii ci EBOA moom xale bu jigéen bi nekk ci classe bu terminal mu ngi jóge woon ci banlieue bu ndakaaru ngir ñëwoon jàng si tey waaye nag ni yëfi demee daanaka sax xaw koo neex. yaakaaroon naa bu ñu ñëwee nañ def cours parce que au moins même deux mois yi ñu may mën nañoo mënoon nañ si def cours pare si benn yoon comme ça ñu def bac bi. tamit bëggoon nañoo ñu gisante waat et tout ak profit sax mooy loolu. kii di njiitu mbooleem luy école privée laïque fii ci Sénégal moom nag mu ngi dàkk ni année blanche du fi amee waaye li muy xaar rek moo di ñu soppar sopparndi waat calendrier examen yi. bañ a niilal at mi parce que at bu niil ci réew euh, loolu musiba bu toll ni jàngoro bi. xam naa ne dañuy réorganiser waat encore calendrier beneen calendrier seetaat yeneen encore disposition. Euh, pour ñu dem ci examen yi. école Sénégal nag dina tëj ay buntam fii jëmmi jamono bu dee ni nag woye ni njàngale mi nga xamante ni si tey lañ ko waroon door loolee nag am na li ko gàllankoor te moo di ñenn ci ay jàngalekat yu ñu yóbboon fële ca Sikicoor dañoo amee coronavirus. ma ngoog coronavirus boobu sax Mohamed Samb euh, tolluwaay bi ni kii tey jii nag jàppale ne juróom-ñeent fukk la ak juróom-ñaar yoo xamante ne nii euh, kon positif nañu fii ci réewum Sénégal. ci junni ak euh, ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti test yoo xamante ne def nañu ko juróom-ñaar fukk yi ak juróom-ñaar nag fekkoon nañu leen di topp ba noppi ndax ay jege ñaale lañu ñaar fukk nag doon ñoo xamante ne bokk nañ ci wàllante googu ñu xamul Sacré-Cœur Popenguine grand Rebeuss Parcelles Assainies euh, Touba HLM Almadies Ziguinchor ak euh, Bignona ñoo seddoo euh, cas communautaire yooyu juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci aji tawat wér nañu ni ki tey jii Sénégal ba fi tàmbalee ba tey junni ak juróom-ñetti téeméer ak ak juróom ñoom la ñuy faj junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ñoo daal di wér fukk ak ñeenti cas grave la ñu am fii ci réew mi. ñu des ba tey ci jàngoro yi coronavirus téeméer boo jël nag juróom-ñaar fukk daanaka ñoo amee jàngoro ji ci réewum Sénégal mooy seetlu gi moo waral euh, télévision Futurs Médias nag jox kàddu ab professeur agrégé agrégé xam-xamam màcc nag ci li ñu duppee santé publique euh, Cheikh Mouhamadou Mbacke loolu la ñu koy wax moom nag mi ngi soññ askan wi daal ñu gën a dëgëral xeex bi ndax tey booy xool lépp foofu la ay kàddoom may mun a njaay moo ko taataan. loolu njàngat bi muy indi mooy mooy wane ne waa kër docteur liggéey bi ñu war a def ak li ñuy def mi ngi am ay retombées wante dafa doyul ndax euh, pour loo xam ne feebar boo xam ne xamuñu ko am na lu bari loo xam ne xamuñu ko parce que loo wax tey suba tey mën nga ci génn suba kon dafa laaj ñu gën a redoubler d'effort et loolu moo tax man may lancer vraiment appel population bi ñi ngi gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñi ngi porte seen masque normalement di ñu jàppale pour que euh, lii bas mi jóge fi mais ñi nga xam ne duñ ko porter ñu xamal leen ne ñi ngi leen di ñaan encore une fois ndax ñu fekk si ñi nga xam ne ñi ngi porter masque yi chef religieux yi nañu leen expliquer ba mu leer seen bopp nañu dem ci quartier yi ASC yi ñu fexe ba waxtaan ak ñi ko yor ñu fexe wàcc ci tere bi wax leen enjeu yi wax leen li nga xam ne mën nañu ko jural ñu waxtaan ak ñoom communauté bi yëpp bu ci jàppee du yàgg tuuti ñu génn ci lii completement mën a dellu suñu liggéey ci fàttali téeméer boo jël ci askan wi kon juróom-ñaar ñoo amee yi euh, mbas mi euh, tey it euh, yemook ñaari fan ci weeru juin ci la ñu war a rek waroon a door ci la ñu war a door sax li nga xamante ne nii moom mooy ubbiteeg cour et tribunaux yi door na ni ki tey ci suba waaye syndicat bi nga xamante ni moom moo ëmb liggéeykat yi fare ci wàlluk yoon nag ñi ngi naqarlu ndax ñoom it nee nañ dara matewul ci wàlluk matuwaay ñeel kaaraange yi ndax nguru Sénégal mel ni matuwaay bu tar bi nga xamante ne waroon na koo teg ngir ñoom it ñu mën a fegu ci wàllu mbas mi ci kaw loolu tamit ñu ngi sàkku uh, ci coppite yi nga xamante ne dana ko tëral ci wàllu yoon ñu fexe rek ba jëmmal ko ci réew mi Cheikh Diop. palais de justice bu ndakaaru ñu daal di dooraat li nga xam ne moom moo di audience yi ak itam service de l' administration centrale bu justice. file ci jamono yi nga xam ne mbas mi mi ngi sonal lool réew bu Sénégal amul benn matuwaay woo xamante nii rek dal nañ ko fiy jël ngir ñi fiy liggéeyee. travailleurs yu bëri ñi ngi ñëw di liggéey mais lañ fa war a fekk comme ay jumtuwaay ak pour moytu maanaam ay gel ay masque fekk ñu ko fi. palais bu toll nii waroon nañ ko désinfecté kenn désinfecté wu ko. sit juste di ñaawlu itam doxalin yi nga xam ne rek jëriñ ji dénk wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal mi ngi koy doxal ci réforme yi nga xam ne rek waroon na koo jëmmal. deful dara bi mu fi ñëwee ba tey Malick Sall bi mu fi ñëwee ba tey may nañ ko diiru at. di ko déglu mais ba sànq ba léegi deful gouvernement bi président de la République def na lépp mais moom moo deful la mu war a def. naka noonu itam syndicat des travailleurs de la justice li sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñu yëngu ci wàll wi ñu daal di dëppook lépp loo xamante ni rek ko docteur da koo dégle ci yile jamono. ñu gën a moytu ah jël seen i matuwaay bañ mbas mi topp leen ndaxte du ñuy dañoo war a muccal seen bakkan muccal seeni i bakkanu njaboot ndaxte fii bu fi ñëwee ba pare du ñibbi seen kër. moo tax leen leen docteur sant yëpp maanaam raxas seen loxo sol masque sorante bi yooyu ñëpp ñu respecté ko ba xam ne daal la ñu liggéey jëriñ askan bi te duñu loro ñi lee nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu yoon di sàkku rek ñu daal di amal li mënta ñàkk. allo 543 210 texte allo 543 210. ma ngoog lu soxal procès bu Ibrahima Samb di euh, taximan boobu euh, ñu euh, faatoon nag tey jii la waroon am waaye dañu ko mujj dàq rek kon ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru juin li ko waral nag amul benn seede boo xamante ne kon tey teew na ci ëttu àttekaay boobu waaye ñi nga xamante ni ñoom ñooy waajuram ña nga woon foofu bokk na nag ci yaayam ñu gën ko xam ci Caane Fay ak Modou njaay mi jiite taximan yi ci Sénégal ñoom nee nañ ak lu mën a xew na yoon fexe rek eh, ba daal di koy teg yoon àtte bi ñu teewlu leen ci micro Cheikh ba ñu faatee sama doom nag ba léegi maa ngi ànd sama sago li may ñaan nañ ci taxaw taxawaay ba nga xam ne daal na doon dëgg rek ndax dëgg moo jëkk dëgg moo mujj. dañ ko renvoyé à cause de témoin témoin yi war a ñëw yëpp yàlla dogal na eh, ñëwuñu. Euh, mais partie bi ñëwi na ñëw na accusé bi ñëw na yaayam ñëw na mi ngi nii syndicat bi ñëw nañu euh, kon li ci des rek mooy le 16 yàggul incha allah bu ko defee ñu def forte mobilisation pour fekkee jugement euh, bi. 2016 la yëf yi euh, xewoon ka ñu naan nag Ousseynou Diop la ñu ne moo génne woon euh, fetal rek daal di koy tiire ci kaw euh, taximan boobu muy ab fàttali rek bi ñu def ci Ibrahima Samb moom nga xamante ne moom la ñu faatoon am na ñeenti at ci tey fii la ñuy tàggatoo mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi farewoon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu sotti ci kanam tuuti 20 xibaar yi ci nasaraan di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo.